813 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. rédaction sur Sunugal 24 salaamaaleykum di leen jaajafal sa su nekk ci kóolu tege ak tànneef gi waaye itam di am mbégte di jàkkaarloog yéen indi leen li nga xam ne moom moo di seen point de la rédaction Fram fàccee lépp luy actualité wala fait divers maa andi ceeg Moustapha Mbaye ama bàyyi ko kàddu gi mu nuyoo Moustapha maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Eva di am mbégte tey di feggoo ak yow plateau bi nga xam ne habituellement Mahfous laa koy defal. Ah, yow moom boo ñëwee rek benn la parce que tamit macha allah da ngay assuré. macha allah dama koy nuyuwaale El Hadj Mahfouz comme moom saa bu bu génnee rek maa koy wuutu di ko wax ne ko voilà tey maa ngi sa place euh, Moustapha tey ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo di euh, taxaw seetlu bi ñu jot a def ci meurtre yi ci biir réew mi parce que euh, Sénégal léegi comme li may wax rek daanaka tur wi ko joxoon dafa dafa jot nañu ngénte ko tuddaat ko. Sénégal réewum jàmm réewum teraanga la ñu xamoon waaye léegi réewum rayante réewum. defante lu ñaaw meurtre yi ñu seetlu jamono ji bari na torop torop torop surtout weer yi nga xam ne weesu nañ ko tabaski ak léegi saa soo xëyee dégg na faat nañu nit amaana euh, nit ñi war nañu xoolaat loolu bu baax a baax lan moo ko waral ak mhm. euh, lan lañ ci mën a apporter ci loo xamante ne nii dina tax naam bu deñul mu wàññeeku loolu lañ fi fas yéenee waxtaane tey Moustapha mhm. dañu koy doore nag ak ñetti meurtre yi nga xam ne seetlu nañ ko fi ci biir semaine bi ca sali benn xale bu góor boo xam ne juróomi nit ñoo ko fa agressé faat ko ci anamu doy waar bañ leen jàppee itam ba tey xamaguñu lan moo waral ñu daal di leen di faat jamono ji ñu ngi ci loxo yoon ñu dem ca euh, Touba benn xale bu góor itam daal dinañu ko fay faat benn civil moo ko moo ko dóor euh, ci la jëlee li nga xam ne moom moo di faatom googu waaye itam ñu dem ca Kaolack ab xale boo xam ne fukki at ak ñaar la am moom itam dañu ko fa daal di faat Moustapha loolu la ñu fa yéene waxtaane tey bu ñu tënkee lépp ci faat gi de manière générale ñetti faat yooyu nga ni ko ci diirum ñetti fan la ñu fas yéene waxtaane ana Moustapha tey faat gi nga xam ne ni ñi ngi koy faat nit ñi ci euh, faat goo xam ne daanaka euh, maa tey rey la li ñuy wax kumba am ndey ak kumba amul ndey faat googu tey jii bu doon sa gis-gis lan moo ko waral réellement waaw Eva gannaaw mu nuyuwaatee ñi nga xamante ne ñooy faral di ànd ak ñun ci suñu point de la rédaction dañu indi sujet boo xamante ne yàgg nañ koo teg fii di ko waxtaanee ci rédaction bi ndax li ko waral mooy dama doon faral di wax na à chaque fois dafa mel ni ay période la boo xam ne dafay ñëw par cycle donc bu ñu toogee ñetti weer wala ñaari weer mu ñëw ñëpp teg ci seen bët ñu toogaat quelques mois kenn dootu si waxati bu ñu demaatee ay bés ci kanam tuuti nga gis mu ñëwaat ñu toogaat quelques mois mu dem kenn dootu si waxati mais euh, constat bi lenn la mooy à chaque fois rek munoo def semaine ba mu jeex te déggoo ñu ne am na ko xam ne poignard nañ ko mu dee wala am na koo xamante ne raye nañ ko ci beneen anam wala am na koo xam ne dañ ko doon agressé ray ko mhm. ba cas bi nga xamante ne sax euh, boole ci nga énuméré parce que semaine bële la woon mooy Joël euh, étudiant boobu nga xamante ne dañ ko agressé jam ko paaka mu ñàkk bakkanam ci boori Clodel bi mhm. di lu métti ñëpp ñoo xamante ne ñi ngi suivre actualité bi parce que nit la koo xamante ne ñi ngi ko xamal ne ñi ngi xamal ne ku jàng la ku amoon avenir la ku am xam-xam la donc soutenir euh, ba pare yàggul dara ñu ñu rey ko noonu. te ci ko fàttali la concours bi nga xam ne doon na ko def euh, finalement bu mu génnee résultat yi bañ ko jotee bokk na ca ña nga xam ne ñoom ñoo ñoo ne ca kaw. loolu tamit ñoo ñoo réussir waaw mi ngi noonu gis nga donc ñu briser espoir boo xamante koo xamante ne. ëllëg moo ëpp njëriñ ñoo xamante ne dañoo màndi dañoo tàggaliko ak seen sago def jëye ji euh, te mii mbir mu doy waar boo xamante ne ñëpp a ko regretté ñëpp ko regretté bu baax a baax maintenant bu ñu revenir ci li nga xamante ne nag mooy cause yi nga xamante ne njort nañ ne bokk na ci li ko indi mooy souvent boo boo boo jàngee journaux yi boo gisee benn euh, cas am boo xoolee li ci ëpp ay xale yu ndaw lay doon tranche d'âge bi rarement sax nga gis ñu yokk ñu ñu ñu yegg ba vingt cinq ans wala vingt six ans ay dix neuf ans lañ lay wax vingt ans vingt deux ans mais ay xale yoo xamante ne ay xale yu tuuti la ñuy doon ñu ne toll seen dugg àddina maintenant ñaawteef këf leen ba ñu commencé am benn comportement boo xamante ne yor seen paaka di wër di jamaate wala ñuy rayaate mais loolu am na yenn actes yu ñuy posé yoo xamante ne après képp kuñ ci déglu police boo déggee lu mu lay wax damaa tàggale woon ak sama sago bi ma koy def donc bëri na ci ay cas yoo xamante ne boo delloo ci ginnaaw sinébar laqatu na ci ginnaaw wala alcool laqatu na ci ginnaaw donc loolu daf ñuy indil benn jàngat bu ñu war a def ci naka la ñu war a def ba ñett xale yooyu ba duñ jot ci alcool wala duñ jot ci drogue bi parce que je pense que ci côté éducation bi je pense que loolu mooy xeex bu njëkk bi xeex bu njëkk boobu tant que réussiruñ ko c'est-à-dire fexe ba xale ñu sore leen ak lépp luy drogue ak lépp luy alcool tant que réussir wuñ ko duñ jóg ci ay ñaawteef yoo xamante ne jam na nit pour benn paquetu almet wala jam na nit pour benn affaire bu ñàkk fayda parce que surtout simplement dañuy mandi wala ñu am na ñuy dundee léegi nag mandi boobu ak drogue boobu nga xam ne dañ koy jëfandikoo parent yi am nañ ci seen waa part de responsabilité parce que képp koo gis mu mandi bay tërëf ci dox ci mbedd mi ci kër la jógee képp koo gis mi mandé ba tërëf di dox ci wedd bi am na fu mu ko jëndee wala am na nu mu def ba jot si bokk donc mu am loo xamante ne pour man bëri na yoo xamante ne dañuy impliqué wu ci biir mbir mi te il faut ñu dugal seen loxo mhm. maintenant ñu bañ a jël affaire bi rek yemale ko ci benn fee bi mu def maanaam jam na nit rek ñu yemale ko si jour bi mu jam nit ak ki mu jam déedéet nañu dellu ginnaaw ñu def benn lecture boo xamante ne dafay gën a profonde c'est-à-dire ñu def récit de ki nga xamante ne moo rey souvent ay jeunes yoo xamante ne boo leen jàppee fi ñuy bàyyi ko dañ leen di xamee ci délinquance du doon koo xamante ne bu ko defee ñu ne betti nañu wala affaire yooyu mais dañu doon ñoo xamante ne daanaka su koñ bi ñu dëkk sax dañ leen di ragal wala ñu leen di joxoñ baaraamu tuuma xam ne ñi am na lu ñu jëfandikoo wala am na comportement buñ mel ñu bàyyi seen gox dem goxu jàmbur dafa am benn comportement buñ fa am ba am ñu fay faat seen bakkan pourquoi parce que euh, ni ni ni ni ni ni ñuy opéré la ni ñu koy defee nekk en groupe yor seen arme di ko jëfandikoo ba ba jël ci bakkan léegi nag kooku ñu jël bakkanam malheureusement ma doon grand perdant parce que la plupart li ñuy gis rek mooy Euh, comme amul faat ñu faat la dañ leen di tëj quelque temps après ñu génnee leen ñu am beneen melokaan bu ñu am ci dëkk bi. ba ci tëj boobu ñu dellu ñu génne leen sax dinañ ci ñëw parce que yaakaar naa ne mooy nekk deuxième point bi mais am na ci ñoo xam ne tey jii ñu ngi leen di ñu ngi faat ay nit te te jëluñu drogue. Euh, parce que boo xoolee cas bi nga xam ne moo am Touba vigile bi moo moo faat xale bi ci ci loo xamante ne ni ci benn supérette la nekkoon werante dox seen diggante ci la ko dal di dooree ci biir bi ci lu ñu jot a xamle bi autopsie bi génnee moo am ay hémorragie interne ba loolu moo mujjee faat xale boobu est-ce que jotut comme ni nga wax sànq éducation mag day yar boppam xale day yar boppam léegi da ngay weranteeg nit ci lu ndaw mu faat la est-ce que jotut tamit ñu xoolaat peine yi bu baax a baax parce que nit tey bu fekkee ne yaa ngi koy rey nga xalaat ne kii boo ko reyee amaana ñu nëbb la jant bi wala ñu rey la comme ni nga ko reyee est-ce que tey ji euh, di nga xalaat rey kenn réellement Moustapha waaw xam nga da nga expliqué léegi benn cas boo xamante ne moom fële ci Touba ñu ko xam ne dañ ne benn coup de la ko dóor bu am doole mu jàpp biir bi mm-hmm. ba mu demee ci ëllëg sa mu dem l'hôpital yàlla daf mu ñàkk bakkenam après ci lañ xam ne dóor boobu mu ko dóor mu am lu yàq ci biir bi ba mu mujjee fa ñàkk bakkanam am na yeneen cas yoo xamante ne yu bëri yu bëri yoo xamante ne dañuy faatu te te ñoo xamante ne la ay mën nañ ne bi mu koy dóor coup bi du jubluwu ci woon pour ray ko mm-hmm. bi muy dóor coup bi jubluwu ci woon pour ray ko bokkul ak ko xam ne dafa jël paaka def ko exprès jam ko nit foo xamante ne day lenn kii objectif bi ko tax a jóg rek mooy ngir mu ñàkk bakkanam mhm. donc loolu mën nañ ko jël benn cas boo xamante ne c'est isolé mi ngi mel ni ñaar ñoo xam ne dañ doon xeex ñu doon xeex nga dóor nit ki arrêt fenn rek mu daal di ñàkk bakkanam mhm. amaana mu koy dóor arrêt am na yoo xam ne mi ngi ko doon dund wala am na lu mu yëgoon ci xolam mu tax mu def ko mais du woon pour ray ko donc euh, pour dire que ne rek euh, am na ñoo xam tamit ñi ngi faat te jëluñu alcool jëluñu drogue mais tamit yeneen mbir la yoo xam xamante ay risques yu am ay xeex yu am gauche am droite ba nit jaare fa ñàkk bakkanam maintenant léegi nag euh, loolu pour ñu gën ko gisaat euh, ak ñi ñàkk seen bakkan yi ci xeex boobu nga xam ne jëluñu drogue ak yooyu yëpp mais boo xoolee ba ci biir lenn mooy nekk toile de fond mooy violence mm-hmm. violence bi moom moo moom moo dem ba daanaka dafa dëkk ci sunu sunu société bi. dëkkin boo xamante ne mi ngi dañu dañu agressif. voilà verbalement ba ci sax euh, geste yi nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy defee parce que même bu fekkee ni rayoo ko sax am na kàddu yoo xam ne boo ko waxee moom mën na. amaana am na kàddu yu ngeen di échangeante kenn ku ci mhm. ne contrôle dootul amati foofu Moustapha ñu jëm ci beneen point boo xam ne yaakaar naa souligné naa ko fi sànq mhm. mais jotoo ci ñëw au fond muy di côté peine bi mhm. peine bi war nañ ko xoolaat tëj nit euh, mu rey nit nga tëj ko benn at wala ñaari at libéré ko banditisme boobu nga xam ne ci la nekkoon bu génnee da cay delluwaat amaana day def kaso këram léegi euh, dimbaliw ñu leen ci biir kaso gi am ay suivi yoo xamante ne ni ci wàllum santé lay doon xool leen psychologiquement ba xam amul lu ci ñoom côté boobu doon na cause boo naa ne war nañ ci dem au fond ci wàllu ci côté peine bi pen bi est-ce que jotut ñu xoolaat ko ku rey nit ñu rey la wala ku rey nit ñu ñu tëj la tëj bu yàgg rax ci dolli am suivi médical waaw li nga wax euh, loolu tamit lu jar a ay xalaat la mais balaa maa ñëw damay damay rebondir à tuuti rek ci violence bi ma nekkoon nga xamante ne moo moo moo moo lëmbee askan wi. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, yaa ngi ko doon wax léegi violence verbale boo xam ne dañoo ba dañ koo toléré léegi mu dëkk ci biir nit ñi. Mm-hmm. jigéen ñi seen i wax léegi lépp violence la góor seen i wax lépp dañ lay violenté te duñ ci bàyyi xel donc ci biir wax rek euh, xëppante acide ay xale dafa féroce donc ay ay expression yoo xamante ne toujours. lu mu gën a lu mu lu mu gën a violente rek dañ koy gën a xeeb donc dañuy dem ba ci biir wax ci ci moo xam ko jigéen ki moo xam ku góor kilo la du ma la may dara tënc ko ba mu sës ah <laughs> maa la gën a bandi donc ay expression yoo xamante ne léegi amatul kenn koo xam ne danaan def defal ndànk wala def donc dañuy dem ba violence bi dafay doon loo xam ne ñun dañ ko accepté te violence verbale doon na loo xamante ne am na ñoo xamante ne duñ ko nangu boo leen waxee yenn wax yi day finalement dañuy jàpp ne da nga leen da nga leen a saaga wala dafa am noo leen def ba tax na kon euh, damay damay logique boobu rek mooy violence bi nga xamante ne violence verbale la doore te ñëpp accepté ko mu am benn acceptabilité sociale boo xam ne warul donc loolu nag buñ ko buñ ko toléré day dem ba indi ay dérives yoo xamante ni ki bu bu saagaa sax léegi da gis ku saaga sax presque ni mu daan choqué bu njëkk ba dootu ko choqué dootu ko choqué parce que dañoo habitué di gis koo xam ne dafay saaga ses réseaux sociaux yi gis koo xam ne dafay taxaw ne teqit saaga nday ñëpp ñëpp ñëpp dégg ko ñu ne garaawul donc c'est parce que dafa dem ba ba ñu nangu ko suñu biir muy indi yenn taar yoo xamante ne mën na indi ay njombe ëllëg ba bu nit ki bu yëkkatee kurpañ dóor te pourtant bu njëkk violence verbale boobu dafa nekk benn antichambre boo xam ne mooy violence physique. bi déglu duñ la déglu moo moo am ci réseaux sociaux yi mi mi mi mi côté boo xam ne war a mën a yaatal mm-hmm. mais xam naa may damay dem rapidement rek ci question bi nga posé léegi mooy mbirum nga xam ne dañuy def ay tooxiduuna après duñ gis dara ñu gis ne dara du leen ci fekk wala ñi nga xam ne tamit dañuy nekk ci kaso bi ñu tëj leen ba ñu génn euh, supposons nit koo xam ne da ko tëj 15 ans wala ñu ko 20 ans mu génn fekk dafa faatoon kenn bu génnee déjà bët bi nit ñi di am ci ci ci moom rek mooy yée waa ji génn na waa ji génn xale yi nga xamante ne dañoo judd woon dañoo judd ci ginnaaw te xamuñu ko ñu ko rombé fréquenté xool ko dañ naan leen kaay ma nettali leen kële li mu def aussi du amati place ci société bi. mais mooy problème de réinsertion bi ñuy wax bu génnee xale bu rombé luñ luñ leen njëkk a nettali mooy gis nga kële ngay gis moo moo faatoon xaw ma ko nekk nen paaka guddi la ko jàmm daal di ñàkk bàkkenam xale boobu bu rombatee kooku bu matul bu toogee si bopp koñ bi daf koy teggi dem parce que bëtu wëyu bi da koy xoolee ba tey donc parfois dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne tolérance bi dafa xaw a manqué ci côté ak côté réinsertion bi joxe une seconde chance duñ ko def léegi absence de seconde chance boobu nag moo waral ki nga xamante ne bu génnee am problème réinsertion si marge bi te boo nekkee ci marge bi lu yàgg-yàgg te biir bu yàggee da ngay gën a nekk marginal te marginal boobu mën a gën a nekk marginal nag mooy waral ay réew yu kese lay àndal ñi nga xamante ne ñoo bokk cercle bi ñoom lay dem fekk yoon nga gis ko ma ma yóbbuwaatee ma demaat parce que ni may dundee nii maa ngi ci société bi mais nekkuma ci société bi mm-hmm. benn comportement boo xamante ne raison mi figue lay doon donc mi mi raison mi figue donc mii loo xamante tey ji euh, pour man euh, Euh, société bi am nañ ci part de responsabilité parce que euh, problème réinsertion am na te loolu autorité tamit am nañ ci part de responsabilité xool naka la ñuy def ba politique de réinsertion boobu ñu gën koo taxawal léegi nag bu ñu dellusee ci peine de mort bi nga doon expliquer ni man dama mës a gëm ne pour man tey ji Sénégal côté pénal dafa bëri ay yërmande yoo xamante ne euh, dañ koy def te yaakaar naa ne buñ ci buñ ko buñ ko appliqué woon fii Sénégal man da bokk naa ci buñ ko appliqué woon gëm naa dina ko wàññi. parfois je trouve je trouve je trouve certaines choses trop faciles même parce que mënoo comprendre étudiant bi ni ñu ko def. koo xamante ne avenir yaayam la ak papaam. di jàng nekk ci yoon bu jub. di di góor di réussir ay concours di di soutenir ay mémoire am amul lenn looy xalaat ci moom lu jël téléphone mu taxaw di risqué yow nga jam ko mu ñàkk àddina mu ñàkk bakkanam ñu dem suul ko ci armée du Saint-Lazare mu toog fa yow nga toog ci kaso ba toog jàpp sa ñaamur boo xëy ñu indi laaj nga reer di suur ma ko defoon wan ki jam étudiant bi exécuté nañ ko mhm. je pense que léegi léegi keneen koo xamante nar ngaa dogaale jiwaat ci kuréel bu da nga xalaat ne ah kii kat su ma ko dogaalee ëllëg mën nañu exécuter mhm. et je pense que loolu mën na doon loo xamante dina dissuader ñenn ñi bien vrai que nag droit de l'hommiste yéeg ñu bëri nañ noonu d'accord ñu ñu koy indiwaat mais doon na loo xamante ne pour man war na mën a doon saafara. voilà Moustapha comme li nga wax rek ci peine de mort bi yaakaar naa ne bu ñu ko fi appliqué woon benn yoon ñaari yoon lu ci bare bare bari dina wàññeeku ndax bakkan euh, kenn ku nekk foog nga sa bakkan ndax boo gisee amaana werante ñaar bu amee bu kenn ki faatee ki ci des euh, dina am neneen nu mu demee te ku sañoon itam sa mbokk dund euh, ñoom ñiy faat sax amaana bu ñu toogee xalaataat du doon lu ñuy bëgg mi habituellement dañ ko tàmm wala fañ leen tàmmal doon loo xam ne moom lañu ñu mujjee def kër comme ni nga ko waxee jógee ci kaso miinatoo kenn ci société bi da ngay da ngay continuer di def li nga xam ne moom nga doon def boobu ñu la fa yóbbuwaatee danga nga koy miin kon nañu jéem a xoolaat suñu bopp defaraat société bu baax a baax te xam ne société bi bu defaroo suñu suñu njariñ la dañu koy daal di jeexalee ci benn point Moustapha mooy tey jii bu ñu bëggee li nga xamante ne nii moo di délinquance boobu nga wax jóge fii ak faat gu ñaaw gi nga xam ne ñu ngi koy faat nit ñi euh, rey nit te dara du la ci fekk ñu tëj kaso la ñu tëj la kaso toog ay weer wala ay at génnewaat la loolu noonu tey buñ ci bëggoon apporter benn solution boo xam ne amaana du ñu ne mën naa jariñ de façon générale wala loo xamante ne nii buñ ko xasee def benn yoon amaana rey gi dina fi jóge waaye dina wàññeeku. waaw amu amul panacée mais ay proposition rek ci am parce que li ñuy jàpp rek mooy pour ma pour man il faut que autorité am benn politique de réinsertion boo xamante ne moo gën a dëggu moo gën a baax moo gën a normal euh, comment euh, parce que ki nga xamante ne bu ñu jàppee ne délinquant la boo xam ne def na yenn at ci kaso bi bu génnee pour man bu ñu ko génnee rek bàyyi ko noonu mu dem noonu mu muy muy wër di wut liggéey fu mu dem ñu koy daw wala fu seen waa kër mu jëkk fa am problème koo jotee sax mu xalaat mu ray ko wala affaire parce que dañuy jàpp ne c'est quelqu'un qui a les mains tachées de sang donc yooyu pour man war nañ ko war nañoo mën xool naka lañ ciy def ñoom d'abord ñu amal leen suivi mais aussi tamit ñu def ne ñoo dëkk ak euh, am nañ benn passé boo xamante ne amaana rëccu nañ ko bu baax a baax am na ñoo xam ne tuubee nañ ci kaso bi am na ñoo xam ne soppeeku nañ ci biir kaso mais buñ génnee seconde chance boobu ñu am duñ ko am donc loolu tamit il faut que société bi nekk benn société moom dafay tolérante tuuti mu dimbali ko jàppale ko ba nga xamante ne ki nga xamante ne am na yenn jafe-jafe yu mu dundi ba def erreur wala mu def naka su noonu nekkoon na jeune parce que parfois ñeen vingt ans dix huit ans gis ko xam ne mhm. ne tey ji boo ko tëjee mu def vingt ans ci biir kaso bi am trentaine wala quarantaine daanaka xaaju àddina ñoom yëpp passé na ko ci kaso donc kooku xamul lu bëri ci ndawam mhm. bu génnee nga bëgg ko dig ber wala nga am benn comportement boo koy may tamit amaana yow yaa ko delloowaat ci biir kaso boobu mu jóge mbir bi mooy tamit euh, kilifa yi ak parents yi ñu gën a xel ci njaboot yi parce que ñi nga xam ne dañuy jamaate ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo drogue bi ñi nga xam ne dañuy agressé waat ci biir kër yi la ñuy te xale yu ndaw yooyu nga ne dañuy dooree ci yenn comportement yi je pense que il faut que parents yi dafay effort tamit teer leen a freiner nu ñu leen di freiné moo ñu am benn regard boo xamante dañ koy am ci xale yi xale nag na ko du da nga yor yet bu génnee nga ne ko toogal bu génnee da ngay nga di ko sonal di ko dóor mu dem ñëw nga ne demati ne mu ñëw nga dóor non non parfois il faut communiquer il faut faire recours à d' autres choses yoo xamante dafay participer ci ci ci ci éducation xale bi soo ko defee mën na bokk ci nga xam ne daf dimbali parce que yar xale du dóor kese du wax kese. dafa am yu bëri yoo xam ne daf koy daf koy parce que am na koo xam ne amaana papaam du wax ak moom bu waxee moom du dégg mais yaayam bu waxee moom mu dégg am na koo xam ne bu magam waxee moom mu dégg donc yooyu il faut nga jéem a xale bi kan nga xamante moom la rus ci biir kër gi nga jéem jaar ci moom pour mën koo raisonner su fekkee ne dem nga ba xam ne xale bi amul ku nag nga jéem a xool yeneen voie yoo xamante war nañoo mën mën fa ko eh, loolu nag bu ko kilifay defee mën nañ dimbali jubbanti yenn xale yi nga xamante ne ngi ci koñ yi xale yi parce que xale du nekk ci kër gi di tux yàmba nga gis ko di ko bàyyi xel noonu nan léegi gis naa comportement wala ni ni non non bu nekkee di tux yàmba teelal jóg ci moom bu nekkee di naan teelal jóg ci moom parce que loolu mooy indi après bu tàggoo sagom di def yenn jëli fu jàmbur baa muy agressé nit ëllëg merci beaucoup Moustapha xam naa dama ci yokk ñaari point yoo xam ne waxtu wi xaw nañoo xoj mais ci côté parents yi lay doon parce que dañuy gis xale boo xam ne mi ci biir këram mais lu wax bi gën a vulgaire yi dañuy ree parce que da leen di man plaisir la ci ñoom xaw ma léegi xale boobu noonu foofu lay commencé nag di jàng yenn langage yu yu yu waar yoo xamante ne nii amaana mën na indi ay euh, agression verbale ci beneen côté bi ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo wàllum sinébar bi lu ci mel ni drogue bi ak euh, kii bi nu mu tuddati nan lañ koy waxee affaire yooyu ñuy fóon. léegi niñ koy jaayee dafa yomb tellement que foo dugg am nga ko ba te telle sorte xale yi léegi dañ koy utiliser rax ci dolli mu yomb torop suñu kilifa yi nañ ñu ci dimbali bu baax a baax bu ñu bëggee xeex itam li nga xam ne moom moo di wàllum rey ci biir réew mi mu Moustapha comme li ñuy cërale woon ci ay waxtu jeex na dama lay daal di jox cant ak ngërëm rek. waaw ma lay gërëm yow di am mbégte di ànd ak yow ci plateau bi balaa ma tëj nag ma souhaiter un joyeux anniversaire. sunu technicien bu mag bi sunu cadreur bi Biggy Biggy Jackson <laughs> di ko ñaanal yàlla rek yàlla gën a dëgëral xam-xam bi yàlla gën a ko may gudd fan ak wér yaram di jaajëfal ñëpp ñu ñuy suivre ci suñu plateau yi ñuy amal ba deme incha allah. merci beaucoup Moustapha je vais m'en profiter sur l'occasion de lui souhaiter un bon anniversaire Biggy Jackson euh, suñu réalisateur bu mag boobu comme ni ko Moustapha waxee di ko wax dundal lu baree baree baree bari da ngaa baax da ngaa yaru yiw nga macha allah yéen ñi nga xam ne yéen doon doon teewlu suñu gal 24 fii la ñuy bi la jotaay ci seen point de la rédaction di leen jox dig daje ba ëllëg incha na ne yàlla daa bind te yemalewul ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba